xutta amat nga lii jëmale ci man sëriñ Tuuba faa iqal maqiis loo xam ne kowe na ay xalaat ak xiyaas bi xidmatil maahi tayit ci sa daraja yaa ma ba ma mën liggéeyal aji far di yenent ba arrahis koo kii nga xam ne mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam te mooy kilifa kilifa ya mukayyisi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 mat leen ñoddi ñuy gën a jaamu yàlla di gën a xam ni ñuy jaamoo yàlla